وثقت برب الهرم بسم الله الرحمن الرحيم ñun waa daayatu axibaaya Serigne Sam Mbaye taxtara il shaykhul xadim ni ñu ko baaxoon di ande yeen ci waxtaan jëm ci diine no amar yéene jotlo lewaat leen fi waxtaan yoo xam serigne sambe rahimahullah moko def ngeen dekkante waxtu wi kon nu gaaw leral leen kat nga xam mom lañ am yéene def leen ko ci cassette bi ba lol soxna si yaare baax baax suñu jëriñ mag yi muy suñ mun taxaw Basir ak sunu magum daayira muy suñu aafee ñang di siyaare njabootuk sëriñ sàmba yi gépp di njiital jiital ci njabootu maam Cheikh mbay ci Baye Salam di siyaare tamit euh, mam Cheikh mi nga xamni moy khalifa seigne Sambay ak euh, seigne ibrahim tam ak njabootu seigne Sambay góor geeg gene gep di siyaare mi sopp seigne Sambay yep ma di nek góor ak jigen mag ak ndaw ci biir rew mi ak bitim rew di ci siyaare bu baax tamit euh, sunu xarit Serigne mbay ak Serigne njaga mbay ñi ñep tamit noonu ci siyaare baax baax kon ñu am yéene jot leen waxtaan ñu tatalo am na njëkk leen indi waxtaan woo xam ne Serigne Sam Mbaye rahimahullah mi ngi ko defee woon Belel Diop seen bi mi ngi doon alhamdulilah mbooleem xeeti cant yi ñeent yëpp ni mu delloo su mboroom mi ngi ko defee woon Belel Diop. ñaareelu kaset bi Serigne Sam Mbaye rahimahullah mi ngi ko defee woon Dakar moom tamit mi ngi doon di islam ak ndaw moom mu ngi ko defee woon Dakar islam ak ndaw mi ngi ko defee woon ci institut islamique bi. waaye am na bu fa defoon rek boo xam ne boobu ñeenti kaset la waaye bokkul bii ñu leen di jox bii ñu leen def islam ak ndaw mooy thème bi. troisième cassette bi seigne Samba yi rahimahullah ñu ko defoon tey beral jëpp te ñu doon yar maam yar ni amé solo ak xali ak xale yi ni leen wara yaré ak yar islam ni mu delloo ci si jamono ji ñu toll numéro 4 bi seigne Samba yi rahimahullah ñu ko defoon amerique te mi ngi doon Sayxul Xadim moom doon woon comprendre sax way si saala toogoon rek di waxtaan di waxtaan ci Sayxul khadim ñu di ci laaj numéro 5 bi seigne Samba yi ngi ko tamit ngi numéro 6 bi sëñ Samba ñu ngi ko defee woon Colobane te mi ngi doon al insaanu kaamil Seexul Xadim numéro 7 bi sëñ Samba mi ngi ko defee waxtaane woon Louga mm, moom tamit mi ngi doon tawxiidul xaas moom tamit Louga la ko waxtaane woon numéro 8 bi sëñ Samba mi ngi ko waxtaane woon France lii moo tamit ay question la ci wàllu tubaab ak ci wàllu wolof la doon tontu question yi numéro 9 bi sëñ Samba mi ngi ko jotaawee yoon ak ku ñuy wax Babacar Diagne mi nga xam ne moo doon directeur moo doon directeur RTS moo tamit émission boo xam ni DCP la woon moom tamit thème bi nga doonoon alquran numéro 10 bi tamit moom sëñ sàmbe rahimahullah moo ko baawka jaay ñoo ko jotaay woon moom tamit mi ngi doon sayidina muhammad rasulullah alayhi salatu wasalaam numéro 11 sëriñ sàmbe mi ngi ko waxtaane woon Louga ci kër maam Cheikh Mbaye gi moom tamit mu doon jàngal xayaatu maam Cheikh Mbaye gi maam ak dundam ak leneen si ay karamam si maam Cheikh Mbaye numéro 12 bi tamit suñ maam suñ sàmb mi ngi waxtaanee Makka Mbay mom tamit magal guñu def fofu mam Cheikh Mbay waxtaan na si si maam Cheikh tamit lu xaw takku numéro 13 bi tamit suñ tambe ñu ko def tamit Makka Mbay magal guñu def tamit euh, mam Cheikh xawa tamit non tamit thème bi li ci mu ngi defal jëm si mam Cheikh. numéro 14 bi suñ tambe mi ngi ko waxtaanee woon te ñu ngi Quran manam yonne gi suñu borom yonne alquran mën a wàcce ko si yonte bi alayhi salatu wasalaam ngir muy xuppe ak a bégal di digli ak a tere moom tamit ak xeeti wàcc yi daan wecc si si yonte bi alayhi salatu wasalaam ak loolu lépp daal mooy si numéro 14 bi si la nekk mu risalatul quran numéro 15 bi suñ sàmm rahimahullah mi ngi ko waxtaanee woon daaru xudus kër sëñ basiru aali aram loo ko waxtaanee woon tamit tam la kaami doon mazahidi yowmal qiyam ak yàqu-yàqu jamono yi numéro ci seigne Samb rahmalahu mi ngi ko waxtaane woon Italie tem mi ngi len wal ashri mo nga xamni sa saar woo xam ni ku yàgg digle dafatam di nga yag dégg bi di ubbi ko numéro 17 seigne Samb rahmalahu mi ngi ko waxtaane woon ñang Mbambooj tem mi ngi don muhasibatun nafs maanaam jihad gi dem adama wara jihad ak bakanam numéro 18 bi tamit sëriñ Samb rahmalahu mi ngi ko waxtaane woon Louga école sëriñ Cheikh mbay moom tamit te mi ngi doon si njariñu xam-xam ak yar numéro 19 bi tamit sëriñ Samb rahmalahu mi ngi ko waxtaane woon ci école Ali Bakar moom tamit thème bi mi ngi jëm ci alquran ak yar numéro vingt Serigne Samba yi rahimahullah mi ngi ko waxtaanee woon njaareem moom tamit thème bi mi ngi doon Cheikh Ahmadou Bamba ak tasawuf moom tamit waxtaan wa xaw yàgg la ay soixante dix neuf jëm kaw loon numéro vingt et un Serigne Samba yi rahimahullah mi ngi ko waxtaanee woon Amérique thème bi mi ngi doon njariñul màggal numéro vingt deux Serigne Serigne Samba yi rahimahullah mi ngi ko waxtaanee woon Kaolack moom tamit thème bi mi ngi doon Asayxul Xadim ak ni mu doon yonent bi alayhi salatu wassalam nga xamni lepp lo xamni gar na yonent bi rek dana ko andi ko mengale lo xamni gar na seigne Touba moom day waxtanu amam solo la nu profito la wala tamit ni kay bi dañ ko amut ak euh, kay bi kon kep ko xam ne yaa ngi di waxtaan tamit bo ko tambali kay bi bo nu ko meuna baxé baaxee ko jël nda waxtanu wu yéeme yéeme am solo la mom tamit ko diglu da nga xamni ni tam solo muy numéro 22 bi. kon numéro 23 bi naam yéen a jot leen si benn waxtaan boo xam sëriñ Serigne Saliou Sow yàlla na ko yàlla yàggal sama ko wér nga xam si mag yi sopp yi moom tamit benn émission la boo xam ni nga ko defee sa rajo Kaolack bi nga xamee ni Serigne Samb rahimahullah nelaw na si ay bis googu sax nga ko defee émission foofu rajo Kaolack di si waxtaanee dundu Serigne Samb rahimahullah ak ni mu barkeelee ak ni ma amee solo ak ñàkk gi ko ñàkk ni mu rëyee si àdduna bépp. rawat na Sénégal rawat na si yoonu murit kon loolu lañ doon waxtaane mu ñu sama xam ñu ñoom sëñ Saliou Sow ni ko doon defee benn rajo mu nekk Kaolack su leen ko julli waxtaan wa ba si biir tamit da ngeen dégg ku ne wax sëriñ daan Sey rahimahullah nga xam ni bu ni sonn ak euh, bañatee noppalu ak bañatee tàyyi lépp rek si roy ko ak positifam su nañ ko jëlee nga xam ni si soppe sëñ Samba yi gën a mag la bokk boo xam sëñ Samba sa daan ko wax ci kaw ci kàddoom ñi di ko dégg nangul ko ak tiafelam kon koku moy sunu mag ñun ñëpp si soppe dana wor ci biir émission bi def ci ay leral yu am solo ak ay yu am solo muy serigne dam sey kon ku bayyi xel ci numéro 23 bi bi ko émission bi xam ñun ci sali sax ni ko rajo Kaolack di nga dégg mu woté kon ñaanal ko baba baax borom yërem ko sa defal ko fam nek mu dakk ko fim jëgé mom dénalé ko ak xaritam ba ak sa ba di Abdul Hakim dénalé ko soppam tamit di sëñ Sambay kon am nañ ci moom yaakaar baax baax mi Serigne dam sey yàlla ko yàlla yërëm ci képp ku jullu kat tamit nga ñaan suñu borom yërëm ko ndax si sopp yi gën a mag la woon ba Serigne sàmba yi nga xam ne moom la am yéen jot ko daan na ko seeral ab cateeram si moom kon moom sab nañ ko baax baax di gërëm képp ko xam tamit yaa ngi jublu kat sëriñ yi bare bare tamit man naa yi si ëpp fekkee bi si bi ndefee si biir réew mi la si Sénégal yi si ëpp ëpp tamit moom tamit si ay arsimam si la jóge ba nga mën koo jariñoo kon kooku tamit war nañ ko ñaanal baax baax ndax tamit suñu tamba yu bare bare ginaaw ginaaw yalla mo dëpp seef ak yitte ak cofeel ban man se jot di ci jariñu kon ni ngi sante baaxa baax a di sëj leen gërëm sa xam tamit lepp lo xamni ne na tamit ci man dong bu ñak solo bi ñu denk mbir mi la waye du ci mbol mi ko denk mi mbolam sopp si sàmba yi kon lepp lo xamni ne nañ tamit bu leen nu wooye si 76 799 74 11 gën nu koo leeral dañ sante baaxa baax kon yeen nga xam yeen nek ci biir rew mi ak bitim réew doon sàkku tamit nu ubbil leen numéro compte bo xam bu suñ sambay si tour daire bi ngir ci wala def seen barkel barkeel diko def kon tamit suñu borom def na tawfiq feex ba numéro compte bobu jàppan na bu yu mi djiblu yor nga bi si bëgg jël tamit man nga jël 341 62 41 88 01 kon na tu len ko 341 62 41 428 01 mooy numéro compte daayira si Nzamba bi nga xam ne moom la ko soppi si Nzamba yi nekk Touba ubbil lu ñu fàttali wax tamit ni daara ji ñu ko bëgg na tabax wax tamit ba léegi ñu si yéen ji ñu ngi koy dox ak suñu muntaxa mi nga xam ne mooy jëriñ mbooloo mi incha waxtu wu sottee tamit danañ tàmbali teg xeer wa tàmbali liggéey di sàkku ndima tamit bépp jullit ak fa nga dugal sa loxo ndax jëf la joo xam do ko ñàkk àdduna doo ko ñàkk àllaaxira muy dimbali yi ba mën seen xam-xam si diine ngir mën koo jëfee loolu mooy yéene yi soppi sëriñ sàmba yi nekk Touba ak téere yi xam tamit Serigne sàmba yi doon na ko traduire si langue ci langue français jëlee ko si langue arabe yóbbu si langue français am na yéene tamit maanaam gën koo tasaare ba mboolem soppi yi fu nekk yépp mën koo jot kon daal képp ko xam ne bëgg ngaa bokk si daara bi wala nga bëgg see ak leeral mën ngaa woote 76 799 64 11 wala nga woote si 33 978 79 33 978 79 wala nga woo ku ñuy wax Serigne Dia tamit ci 76 664 80 26. wala fekkee Dakar nga nekk tamit bu seeg leer tamit mën ngaa woo ku ñuy wax Mouride Fall moo tax ba tamit jaay fi Sandaga moom tamit 76 384 60 60 moom tamit Sandaga foofu la nekk muy sëñ Motala Fall. kep ko itu ko kaset tamit maanaam kasetu sin samba yi jëm ci mbalum image ya ak so ak yi kasetu tamit mbolam yi am nañ ci takko takko ak kaset ni Abdourahman ak Sëñ Moustapha sarih ak Sëñ mohammed khairi Jaxate ak mbolam waxtaan yi jëm ci diine yi bare bare mbooloo mi daje nañ ci yo xamni kep képp ku jokkoo ñoom 76 749 di ci si am ak jappal kep képp ku bëgg ci daara bi ne wala ci bëgg yok ndax xel bi ak non mën a gën xel tamit boo jokkoo ñu si numéro yooyu incha allah dana jàppandi sab na leen bu baax sa biir gërëm di jéggulu kàddu yi di ñaan suñu borom defal nu tawféex defal nu ab liggéey bu nangu bu barkeel ci daraja yi weeru tedd wi ñu nekk muy weeru safar bi nga xam ne Sayxul Xadim si lañ koy fàttaliku kon ñu ngi ko si sant bu baax a baax si liggéey bu barkeel bi nga xam ne ni ko si Musaa Ka waxee bu doon ak bu du kon ak dem gi wala fi yëpp danañ nosraanu sa kon léegi ñëpp dem niiraanu kon képp koo xam ne buddi na la sa gétt sa sawar rek mënoo koo fay kon li sëñ Samba waxan ni buñ jaayeen sunuy ndey ak suñuy bàyyi jaay suñu mbokk yëpp tamit du tax nu mën a fay sëñ bi kon nag nu delluwaat fàttewoon loolu rek ni mën noo jëfal lenn ngir fay sëñ bi waaye nag ma ñoo jëf lu xaw nir fay ga muy lan muy lépp lam daan santaane sa lu baax nu jàpp ko sañ koo bàyyi lépp lam daan tere sa yàlla tere ko tamit muy ab safaan bu nu fa kenn seen ba dañu ko tere kon ñu ngi fàttalikuwaat tamit Sayxul Xadim baax a baax si bis bii. kon MP3 mi ngi pare si le 3 deuxième mois 2010 tombeeg bisub àllarba di 18 safar di màggal Sayxul Xadim kon nag tawféex yëpp kon na si kon mi ngi pare si le 3 deuxième mois 2010 tombeeg bisub àllarba di màggal Sayxul Xadim mi ngi màggal si 18 safar ki leen ko doon dajale ak di ko defal tamit. mooy dongo si ñàkk solo si nga xam ni moom la ñu wax xaadim bi mu suñ sàmbay tubaab daari minnam di defaat baax a baax tamit ak fàttali ni si ni ni ñu waxee ni noonu la waxtaan yi demee ak fi mu ko defee tamit ak tamit bu fekkee jum nañ tamit na xam ni dañ doon jéem a gëstu rek ak di si jéem a sonn ba jël si xam-xam boobu bu fekkee am nag koo xam ne tamit gën koo xam sam jum tamit bu ñu woo si numéro yooyu tamit gën na koo jubbandi dana am solo baax baax ndax ñun suñu borom dogal na fekkeeru woon waxtaan yi sunu sunu sunu gëstu lañ def rek ba xam si loolu nu ko su néew kon képp ko xam ne dégg na si njuumte nga jégal nu ko sa xam ne fekkewu nu koon dañoo sob rek ak di jéem a nab nabi moo waral lépp ak di dàq tamit bànneexu soppe yi liñ bëgg tamit di leen ko si defal moo waral nu am yéen leen yi jox na fii lu ko defe woon ak lii mooy bi su leen gisee tamit date yi lu si ëpp waxtaan yi implication tamit njëkk génn yëpp den dégg nu wax ci dati loolu tamit li ci jublu mooy dati léeg-léeg day xaw a bari ak waroo lool ci ñi la koy jox so moo tax tamit euh, dati yi doo faral du dégg ma wax naa la dat sàngam noo ko defoon waaye nag danaa jéem a def góorgóorlu ba xam dëkk mu ko defewoon ak lan mooy thème bi loolu daal naa jéem a def effort baax a baax ngir jottali ko kii déglu kon lépp loo xam ne jub na ci ci baax su borom la lépp loo xam ne tamit dëng na ci sama manque la ak sama néew xam-xam nu fàttali woon tamit daara ji nii suñu itteel la itteel soppi si Samba yëpp la fépp soppi si Samba yi nekk na ko wóor ni alalam la doonul luñ naa ko barkeeloo si sa mbirum bopp la. niñ leen ko wax si kaset yépp jàll sëñ sëñ Moussa Ka nee dara di néew ba suñu borom neenal ko dara di yàggit ba mu niilal ko kon nag nañu si bàyyi xel bu baax a baax fàttaliwaat leen tamit numéro compte bi képp koo xam tamit am nga ittey barkeelu si si biir réew wala bitim réew ak foo man nekk ngir bëgg a jàpp si soppe yi tamit soo jëlee numéro compte banque boo ko defee incha allah soppe nañ jot muy 341 62 41 88 01 képp ku doon itteewoo kas ni tàmbali ak kase yu jëm si diine yi mel ne yi sëñ Abdourahmane di firi téere xam-xam yi ak ay mbitax si Moustapha Salih ak waxtaan yu bare bare yu si diine daal ak sëñ Samba yi soo wootee si 76 699 64 11 dana mën a jàpp ni ñu ngi jégalu kàddu guddi kon sëriñ Samba yi bisimilah.